Euh, loolu ñu wax ci euh, coupure internet ndax sànq maa ngi leen ko doon junju euh, gouvernement bi dafa génne communiqué ne jamono ji daal internet surtout données mobiles yi dañu koy coupé ndaxte daal dafa am ay nit yu fay jaare di jàllale ay message yoo xam ni dafay indi fitna ci réew mi loolu nag tax na ba jamono ji nit ñi mën a jokkoo jafe lool alors dañuy si dañ siy waxtaan ak kenn ki nga xam ni dafay yëngu ci ngir àq ak yelleefu way jëfandiku yi jiite jiite euh, li nga xam ni mooy euh, l'union nationale de consomateur du euh, Sénégal di Ibrahima Dramé Ibrahima mag lay nuyu. maa ngi lay fay Pierre Edouard Faye. Ibrahima en tant que consumériste lan nga gisee coupure internet bii di ñaareelu yoon gannaaw weer wi weer wi nga xam ni passé na ñu defoon ko mu indi woon jafe-jafe yu rëy ci nit ñi. waaw merci encore Pierre kii sa laaj bi parce que am na solo trop. parce que kii l'un des droits du consommateur euh, le droit à l'information dafa am solo trop et ñun euh, au mois de mois passé déjà euh, dañu def benn communiqué pour demander à l'État mu ñu lever interdiction bi parce que loolu day indi ay restrictions ci liberté d'usage et ce waaye des plateformes parce que dañ gis am na ay Sénégalais yoo xam ne internet daf leen may au moins ñu liggéey kon nag si état bi dafa inter restriction dafa couper signal internet bi kon nag euh, déjà day day indi ay jafe-jafe ki askan wi loolu moo tax ñun déjà depuis première interdiction bi dañuy laaj état bi mu lever interdiction yooyu parce que loolu day indi ay jafe-jafe ki askan wi parce que euh, en en dehors de ci problème emploi bi parce que am na ay yoo xam ne ci internet ñuy liggéey mais tamit am na un autre problème yoo xam ne mooy transfert d' argent yi loolu tamit day indi jafe-jafe parce que internet la ñuy jaar. souvent pour au moins def transaction yi vraiment ñuy lancer un appel à l'État pour ñu lever interdiction boobu parce que jamono dafa metti trop et loolu daf ñu permettre vraiment ki euh, euh, au moins rafetal diggante sociaux entre euh, usagers yi pour que ñu mun def seen transaction surtout ci panne économie bi parce que soo xoolee quarante pour cent des emplois tey nii soo xoolee internet ñi liggéey waaw mais suspension boobu gouvernement bi daf ka motiver ndax dafa ne dafay am ñu fay jaare di diffuser des messages haineux et euh, subversifs est-ce que d'accord nga ci motivation boobu ñu motiver seen communiqué waaw tamit beneen problème bi mooy la régulation des loolu tamit il faut que aussi que ñu xool comment réguler euh, l'espace euh, des réseaux sociaux parce que tamit euh, gis naa ne à travers les réseaux sociaux les gens qui appellent aux émeutes loolu tamit ñun au niveau de l'union nationale des consommateurs dañ koy ñaawal léegi maintenant il faut que ñu indi réflexion comment euh, au niveau du Sénégal mën nañu réguler réseaux sociaux pour que genre appel yooyu vraiment moom bañ a am mais au-delà de cela aussi euh, yoo xam ne dafa am solo mooy restriction bi de india ay jafe-jafe ci askan wi loolu moo tax ñun daal ñu demander l'État daal mu interdire loolu di supprimer euh, connexion internet bi parce que di indi ay jafe-jafe parce que soo xoolee 40 pour cent Sénégalais yoo xam ne à travers internet mooy seen liggéey bi kon nag soo ko euh, euh, supprimer loolu moom day indi ay jafe-jafe ci askan bi loolu moo tax daal ñun daal dañu bëgg daal vraiment dans les heures à venir ou bien dans les minutes même ñu lever interdiction boobu vraiment parce que de indi dinañ indi ay jafe-jafe au lieu que ñu régler problème mais mun na euh, indi yeneen problème yoo xam ne mun nañu ko bañ a gérer. jërëjëf euh, Ibrahima Dramé jiite euh, Union nationale de consommateurs du euh, Sénégal doon addu ci suspension bi ñu suspendre lii di internet jamono ji ci Sénégal donc rawatina nag ci wàllu wàllum données mobiles yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yoree téléphone portable bu fekkee mën nañu wowal xoxaan ndong ñu delluwaat ca tribunal bu Ndakaaru xool évolution situation bi ndaxte Ousmane Sonko mi ngi ak doyen des juges di Maham Diallo depuis. 11 heures euh, donc ñu war ko nag euh, interroger ci euh,